fañ leen daan nuyoo muy seen émission xale mi bu ñaw euh, di émission bi nga xam ne si nii mooy dajale borom xam-xam yi tey nag ñu ànd ci ak kenn koo xam ne si nii daanaka kenn dootu ko présenté si euh, biir réew mi wala bitim réew muy bàyyi Baye Alkhayri euh, borom basmala moom lañ fas yéene àndal tey ci waxtaan bu am solo solo ñu fekk fii ci Parcelles Assainies fii ci këram Cheikh bi dama lay bàyyi nga nuyoo ñu soog a dugg si waxtaan bi. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi wax yaa himmata cheikh uxdir lana bi haazal mahdari wal taxtu fii bi nazratin taati lana bi safar ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu mboolem waa Sénégal ak mboolem waa bitim réew yëpp fu waaye mën a nekk ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla yàlla may la teraanga may la barke may la wér-gu-yaram ak naataange incha allah Euh, am mbégte lool ñëw fii fekk li sa kër jàkkaarloo ak yow fas yéene euh, ni ma ko waxee léegi waxtaan ak yow waxtaan boo xam ne si nii waxtaanu njëriñ lay nekk euh, jëm ci askan bi fi may doore rek mooy jaaro bi may dégg dégg naa Cheikh bàyyi Alxayri am na jaaro boo xam ne si nii jaaro bu yéeme la ndax man nga ñu ñëwal tuuti ci jaaro boobu rek ñu am ci ay nu mu tuddati maanaam information tuuti. waaw bala ma commencé si jaaro bi ma wax ci la tuuti rek. nga xam ne moom lañ may dàkkantele di leen sant yéen tam di leen gërëm bu baax ci question bi nga laaj euh, ñu may dàkkantel borom la bisimilahi rahmaani rahim maa ngi leen koy may ku ko mën a bind ki junne ak ñaar muy douze mille nga di ko sangoo incha allah yàlla dina la may xiwal soo ko bindee douze mille tam bu paree man nga di ko sangoo di wir de 787 foo sangoo ba pare rek nga wir de 787 boo ko defee yàlla dina la may xiwal dina la may barke foo mën a nekk incha allah bu loolu wéyee ñu dem ci jaaru bi jaaru bi ala kulli haalin euh, jaaru moom lu fi yàgg la depuis yonent yi amoon nañ ko yonent bi sallallahu amoon na ko yonent yàlla Suleymaan amoon na ko ci la secret nguuram gépp nekkoon dafay tax da lay cadré nga nekk koo xam nit ku mag ngay doon ku la fexeel du man ci yow dara te lépp loo yootu yàlla da la ko yombalal te da lay jural ay relation yu mag a mag a mag incha allah te lépp loo nekk da ngay gën a dem ci kanam waaye doo dem ci ginnaaw mukk incha allah kon jaaro bi eh, boo ko takkee daal du benn eh, benn affaire rek lay def ci yow mais da lay lay lay wër maanaam da lay aar ci ci ci ni mu gën a yaatoo. da aar ba pare da lay indil ay xiiwal ak ay barke. ak yokkute bu baax ak ay relation yu mag. bu fekkee da ngaa nekk ci place bu mag bu siiw bañ yàlla wàccee la wala nga bañ noonu mënal la dara. war ngaa yor jaaro bi su ko defee yàlla dina la dimbale bu baax a baax. kon de jaaro bi dañ koy liggéey xanaa war naa war naa jafe. waaw sans départ rek mu ngi aju ci bu ñu waxtaanee ku ko soxla rek bu ñu déggoo. waaw secret yi secret yu mag laa ciy def du secret yu ndaw daal du secret yu ndaw secret yu mag laa ciy def ndax loo xam ne fa war a jëriñ jaam bi war ko musal di ko aar loolu lu rëy lañ ci war a def liggéey bu bu jaar yoon lañ ko war a def waaw. Eh, ginnaaw euh, jaaro bi tamit eh, gis naa fi eh, ndomba boo xam ne si nii tamit ndomba bu bu doy waar la ndomba boobu moom ban njëriñ lay am. waaw ndomba bi moom tam deru gaynde lañ koy ewee képp ku ko takk di nga am alal di nga nekk daal borom alal bu mag a mag incha allah bu ñuy lim borom alal yi di leen la ci boole incha allah moom loolu mooy xusuusiyaam waaw li kulli shay'in xaasiya mbir mu nekk am na jagle ndomb bi moom loolu mooy jagleem loolu mooy xaasiyatum hmm. da lay taal ci lu gaaw a gaaw te taal sax am naa ci beneen yoon gannaaw ndomba bi itam am naa ci yoonu riyaada ak yoonu xalwa maanaam euh, doo ñu taal doo ñu doo ñu euh, faram fàcceel euh, ñaari yooyu nga lim. waaw xam nga taal baatu nit ñi taal mooy nit koo xam ne dafa bugg a nekk nit ku mag bugg a am alal bu bari bugg a nekk nit koo xam ne kenn du ko mënal dara ci wàllu kenn du ko mën a yàqal daal su ko defee da koy defal riyaada wala nga defal ko xalwa wala nga jox ko ndomba bi incha allah bu ko takkee yàlla dina ko dimbale bu baax a baax. loolu de xanaa kon euh, sorewul ak bayre waaw sorewul euh, torop ak bayre waaye bayre itam am na xususiya beneen mbir la am na xaasiya boo xam ne kooku ci bayre rek lay dox bu ñu la ko defalee nga sangoo ko wala ñu wir daal la ko wala ñu defal la ko ni ñu la ko war a defalee ñëpp dinañ la dégg bu dee jaaykan nga lépp loo jaay dina jar bu dee société nga yor société bi dina dox bu baax ñëpp dinañ ko xam dina siiw te nit ñi loolu rek lañ bëgg boo gisee am ñu bari ñuy yóbbu seen société yi ci télévision yi di ko publicité ak demee noonu pour société bi mën a dox bu baax moo tax léegi nag bu ñu la gémbee ci wàllu bay rek boo defee publicité day gën a baax bitim réew da am ay contact su dee tubaab yi ngay liggéey da ngay gën a mën a liggéey ak ñoom dañ lay mën a financer xaalis bu bëri te yàlla daf lay may résultat doo daanu mukk ci sa liggéey waaw. Euh, loolu de xanaa dina war a ànd ak euh, kaaraange parce que Bayre tamit suñ ko waxee euh, ca gannaaw dina war a mën a am kaaraange goo xam ne si nii moom moo lay moo lay aar ba nga xam ne si dara leneen maanaam Bayre bi du la yóbbu feneen foo xam ne si nii fu négatif lay nekk. waaw Bayre boo ko xamee dëgg sëriñ bu man ñaan xam ñaan dëgg-dëgg soo ñëwee ci moom di sàkku Bayre mu bëgg laa dimbale. du la defal bayre simple wala bayre kese day defal bayre ba pare defal la kaaraange ndax bayre comme ni ko borom xam-xam yi di waxee daa war a ànd ak kaaraange parce que yàlla moo ñu bind moo bind lépp lu nekk ci àdduna bi mais yàlla moo bind liy doxal euh, mbir yi ci côté yëpp kon nit ki soo ko defalee bayre da nga ko war a defal loo xam ne moo koy aar ci musiba yi ak balaay ak seytaane yeeg làmmeñ yi ak cat yi solo bu baax a baax a baax ñi ngi ànd ak tey eh, seen émission bu mag bi le eh, di xalima bu ñëw eh, Cheikh Baye Alkhayri borom basmala moom la ñuy àndal tey ñu fekk ko fii ci Parcelles Assainies unité 20 côté école Mandela donc foofu lañ ko fekk tey numéro yaa ngi noonu muy 77 109 56 15 77 109 56 15 ñu gën a xuus ci waxtaan bi sëñ bi ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy cat. Euh, ndax cat euh, nekk na lu sew comme ni ñu koy waxee ci olof nekk na lu sew nekk na lu sonal doomu aadama yi tamit parce que euh, ñu ngi koy wax sax ne da topp ba sa bàmmeel cat nan lañ koy mënee dindee ci nit. waaw cat moom yonent bi sallallahu alayhi na ko bu yàgg wax na ci ay wax yu bari hadis yu bari wàcc na ci. nee na bari na gëlëm gu dugg ci cin cat moo ko fa dugal maanaam dañ ko xool ba catu ko far ñu reyandi ko dugal ko ci cin bari na tam nit koo xam ne génn àdduna nee na lépp ci sama xel leen di rey gannaaw bu yàlla wéyee cat la te cat day topp nit ba ci bàmmeelam yàlla ñu ci yàlla musal muy loo xam ne euh, lu bon la nit cat dina ko jàpp bañ bañ foog dañ koo liggéey fekk liggéeyuñ ko cat rek moo ko jàpp cat tam dina jàpp nit nit koo xam ne ñëpp ko doon dégg ñëpp ko doon tudd mu nekk nit ku baax comme am njëriñ bari valeur mais cat jàpp ko ba mujj yàqu ba ku ko gis da nga koy yërëm loolu tam cat dina koy def ci nit li ci gën nag mooy nga fagaru ndax yonent bi ne al xayaatu xayrun min al ilaaj fagaru moo gën faju koo xam ne yàlla boole nañu incha allah bu ñu la defalee càngat yi ñu la war a ak ñaan yi ñu la war a defal yow moom wàllu cet moom da koy dégg rek waaye du la arrivé mukk incha allah taala. Euh, cet moom xanaa sorewul ak li nga xamante moom mooy làmmiñ ak bët euh, bu aay li ñuy wax. waaw xam nga bët euh, porte la ci nit ki làmmiñ tam porte la ci nit ki mooy ñaar yi nga xam ne bari na loo ñoo ëpp doole ci wàllu cet xel nag dinay catu bët dina catu làmmiñ dina catu waaye daal yooyu yëpp. boo defee suñu ñaani ak suñu càngat incha allah yàlla dina la ci musal Euh, am na solo bu baax baax dañuy gën xuus comme ni ma koy waxee léegi rek ci li nga xamante euh, nekk na loo xam ne si ni feebar bu complexe la nit dina am sax te feebaru tële ba pare ko mën a wax kenn ndax euh, am na kersa yu waxtaane ko loolu mooy tax ñu bëri dañ koy yor rek daal di koy toogaale mu nekk nag loo xam ne si ni dañ ko doon gis ci mag mais léegi dafa am ci xale yi ñi nga xam ne ay xale yi ndaw lañ 25 ans 30 ans daal di commencé am li nga xam ne moom mooy tële tële sëñ bi ban saafara euh, nga ci am ci euh, faj bu gaaw. waaw télé am nañ ci ay ñaan yu bari parce que ñun yàlla dénk nañu wàllu xaatim dinañ ci yëngatu. lu mel ni musalas xazaal yi musalas kunti yi ak rab euh, murabba mu xamas mu sadas mu saba mu achar ba ci alfu buyut yëpp yàlla may nañ ci ay xam-xam dañ koy yëngatu bu baax xam nañ niñ koy defee mën nañ ko bu baax a baax yàlla dimbal nañ ci wàllu tur yàlla itam yàlla am na lum ñu ci xamal ci wàllu alxuraan ak ci wàllu garab sunguf ak reen ak ci wàllu mag ñi moo tax am nañ ay traitement yoo xam ne képp koo xam ne ngaa am tële wala ngay gaaw a yegg gaaw a sa bopp ak yu demee noonu incha allah buñ ci jokkoo dañu la defal traitement boo xam ne di nga am naturel te du am benn effet secondaire te yàlla dina la dimbale bu baax a baax a baax. am solo loolu moo doon euh, télé ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, ponk bu mujj bi ndax euh, daanaka lu ñu joxoon ci waxtu li ci des bareetul muy tolluwaayu réew mi ndax réew mi sëñ bi jaxasoo na lool jamono ji kenn xamatul kan mooy kan coow li bari na courant bi coowul courant yi chaque jour ni ñaa ngi ci mbedd mi di kaas loolu lan moo koy waral ci réew bu ñu tollee foofu. waaw loolu li ko waral rek mooy ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy tànn ñu jiite réew mi. dañoo war a bàyyiwaat seen xel comme bi nga xam ne ñu ngi laaj réew mi wàccoon nañ ci askan bi dem ci dëkk par dëkk kër par kër ba xool jànkoo euh, askan yi seen jafe-jafe yi ñu jànkuwanteet ñu wax leneen dinañ ko régler suñ demee itam ba nga xam ne yàlla dénk na leen nguur gi te nguur gi ñu leen dénk alalu réew mi yëpp la dërëmu ku nekk mu ngi ci parce que taxes yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci li ñuy consommer moom la ñuy defee seen nguur moom la ñuy doxalee seen nguur mooy alal bi nga xam ne moom la ñu ñun ñoo leen di fay kon nag ñoom dañ naa denk réew mi pour bu alal yi ñëpp dajee ci loxo kenn xam nga alal yi mbooloo buñ ko dajalee ci kenn day bëri bu ko dee secteur bu nekk rek war nañoo tibb ci alal réew mi defar ko nga xam ne réew mi dinañ nekk ci jàmm kenn dootul am problème mënuñoo wax ne réew mi yëpp dinañ nekk ay milliardaire de waaye suba lu lu gën a gàtt mooy ne eh, ndékki añ reer ak consommé courant ak euh, dem tukki dem ñëw war naa mën a yomb ci képp kuy ewoo ci réew mi su ko defee nag ñu wax ne ñëpp mën ñoo yem loolu dëgg la maanaam ñëpp mën ñoo nekk milliardaire waaye maximum wala minimum ne nit ñi jogee ci xiif bi waaye ne ñëpp mën ñoo yem rek wëcc nit ñi ñii di xiif ñii duñu am lu ñu ndékki ñii duñu am lu ñu añee ba pare nga ne réew mi baax na ne kenn du ci du marché kenn du euh, dox doxu ñaxtu loolu tam jaaduwul waaw lii yoon daal mooy réew mi ñu ñoom ñoo ko bokk nañ fexe indi ay solution yoo xam ne mooy doxal réew mi génnee nit ñi ci ñàkk gi nekk ak jafe-jafe yi nekk te ñu xam ne itam ñëpp mënuñoo nekk milliardaire loolu moom ñëpp xam nañ ko sénégalais yi nag dañoo bëri sutura bëri valeur ay jikko yu baax ba ku ci ñàkk ndékki sax doo ko xam ku ci ñàkk añ doo ko xam waaye nañ fexe nag ba loolu jeex ci réew mi te loolu war na fee mën a jeex ndax ko am lu mel ni pétrole lu mel ni gaz lu mel ni zircon lu mel ni or ak yu demee noonu loolu foo ko présenté ci àdduna bi mun na laa jëriñ lu bëree bëri su boobaa nit ñi mën nañ leen a génne ci ñàkk gi dugal leen ci maximum ku feebar faju ku bugg courant mën koo am ñu yombal location bi yombal courant bi yombal yépp loo xam ne war naa yomb ndox sax war nañoo dem ba kenn dootu ko fay ci réew mi te loolu yoon la courant ci boppam war nañoo dem ba kenn dootu ko fay ci réew mi loolu yépp mu ngi aju ci bu amee ay njiit yoo xam ne am nañ expérience bu baax a baax loolu moom lañ leen di xaaree waaye jamono bi ñu nekk bokkut ak 1960 ba nga xam ne xel yi ci beneen niveau lañ toll woon léegi jamono yàlla wax na ci alxuraan ne wa kulla shay'in ahsaynaa fi imaam mubin lépp ñun yàlla synthétiser nañ ko ci imaam bu feeñ bi ñii ne mooy alxuraan ñii ne mooy yonent bi salaa salaam waaye jamono bu nekk dafa leeru yàlla gi dafay tolloog jamono ba tey jii ay carte mémoire ngay wax ay internet ay ay ay whatsapp hmm, ay wifi la nga doon enregistré bu njëkk mu nekk ay cassette yu bari tey ci benn carte bu ndaw ci nga koy def kon xeli doomu aadama tam dem na ba tollu foofu comme nag xeli doomu aadama dem na ba tollu foofu nañ bàyyi gouverner comme ni ñu njëkk ñu nañ doon gouverner loolu dafa passé nañ teg mbiri ci yoon nañ fexe nit ñi ñëpp nekk ci jàmm nekk ci naataange loolu daal laay digal askan bi di ko digal ñi nga xam ne ñooy laaj réew mi di ko digal ñi nga xam ne tam ñoo ko yore bis ni ki tey. Euh, ñu ngi lay jaajëfal euh, bu baax ak si nañ ci cëppaandaw bi xanaa dama lay bàyyi rek nga daal def sa kàddu bu mujj ci émission bi ak message bi ngay lancé jëmee ko ci euh, ndawi réew mi. waaw ndaw itam li ma leen di digal mooy nañ góorgóorlu. ci daan seen doole te buñ xeeb benn liggéey te itam suñ bëggee dem bitim réew ñu fexe jaar ci ay kayit ak ak avion moo gën di jaar ci gaal gi di xaru te ku xaru daanaka daal yow yaa lor sa bopp loolu baaxul donte nag réew mi métti na jafe-jafe bëri na waaye buñ takkaayoo taxaw ñaan yàlla liggéey yàlla mën nañoo dimbale ba lépp luñ bugg am dinañ ko am maa ngi ñaanal Sénégal yéen a fi yàlla def jàmm yéen yàlla tàppe xoli waa Sénégal yëpp yenn yàlla soppi système bi. teg ko ci loxo gaa yoo xam ne dañ ko mën a doxal bu baax a baax loolu yomb na yàlla yal na ko yàlla def yenn nañu yàlla indil ay njiit yoo xam ne bu ñu fi nekkee dinañ teg mbir mi ni ko war a tegee ba ñëpp gis seen bopp kenn dootul sonn ci ci ci ay terre yoo xam ne lu ndaw la loolu yomb na yàlla yal ñu ko yàlla defal bi jaay sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax euh, Cheikh Baye Alkhayri borom la moom la ñu àndaloon tey ci seen émission xaalima bu ñaw ñu sant ko bu baax ci xam-xam bu sell bi ñu fekk ko fii nag ci këram muy unité 20 ci côté fi nga xamante ni moom mooy Mandela numéro baa ngi noonu ci suufu écran bi bu ngeen ko bëggee jot rek ci li nga xamante ni wax la ko fii faj seen saafara faj seen i aajo mën ngeen a jokkoo ak moom ci numéro bi muy 77 di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni tamit. te yéen yi mbokki internet yi topp suñu programme Sunugal 24 ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nekk ci réew mi ak bitim réew jërë ngeen jëf